bismillaahi rahmaani rahiim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. bokki jullit yi bokki taalibe yi ñoo ngi dellu si waat di leen nuyu ci turu daayira Muxaddamatul Xidma ci njiitul sëriñ Afiya Buso ñu ànd ak sëriñ Abdul Ahad Buso sëriñ Abdul Mutalib mi nga xam ne mooy secrétaire général bi ak lenn ci kilifay daayira bi ñu ñëwoon tey siyaare si sunu kilifa gi toog di sëriñ Cheikh. Mbàkke moom sëriñ Abdul Xaadir ñu ñaan suñ borom mu yàggal ko fi lool te may ko wér te mottali ay yéeneem te may ko kattan gu mu mën a àggale liggéeyub Cheikh Abdul Xaadir bi fa mu ko bëgg a àggale te nu ànd kook moom ñu siyaare si woon ko nag ci turu daayira mu xatamatul xidma ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo ci aju tey ji di ko ndokkeel itam ci weer wu wii ñu nekk di weeru safarul xayri bii weeru sëriñ Touba sëriñ bi ñu ngi lay jotti nuyoo mboolem waa daayira bi di la jotti itam seeni ziyaara di la wax ne itam nun sag njaboot lan di njabootuk sëriñ Touba yàlla ate ñi fi nekk ñëpp ñi ci ëpp suñ borom dogal ñu bokk ci sag njaboot yàlla baaxee nu kilifa goo xam ne doy nañu sëkk ci fànn yëpp ci taxawaay bi nga xam ne war taxaw na ko ci liggéeyub Serigne Touba bi euh, taxaw bi nga xam ne taxaw na ko itam ci liggéeyub Cheikh Abdoul Khadir bi nga xam ne moom la doon liggéeyal bu baax ñu di ko béggee bu baax a baax a baax di ko sant yàlla di ko sant Serigne Touba di ko sant Cheikh Abdoul Khadir waaye dala ci sant nag bu baax ndax Cheikh Abdoul Ahad Mbacké daana wax ne sa kilifa loo ca fekk rek mooy sa sens. kon bu nu yàlla baaxee kilifa goo xam ne suñu borom defal nañu ci lañu ca gënal dañ koy sant yàlla bu baax a baax a baax di ko sant Serigne tubaa bu baax a baax di la wax ne nag ñu ngi nii ci sa kanam euh, doon taalibey Serigne tubaa doon jumtukaayu Serigne tubaa yoo xam ne dara nekkul sunu xol dara nekkul ci suñu yitte it lu dul liggéeyal Serigne Touba ci lañ bëgg a dund ci lañ bëgg faatu ci lañ bëgg a dekki Euh, loolu rek moo doon suñu yitte bu ñu sañoon nag bu ñu teewee ci sa kanam bay dem ni nga ñu joxe ab yóbbal yóbbal boobu ñu seq ko mboolem ñi nga xam ne ñoom lañ seqal liggéey bi kàddu yoo xam ne dañ koy barkeeloo yuy soññi yoo xam ne day jëm ci noonu jëm ci ñi ñu seqal liggéey bi loolu rek lañuy dagaan tey jii nga baaxee ni ko ngir jëmmi Sëriñ Tuubaa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 daayira bi nga xam ne ñoom la sëriñ bi tuddee muqaddamatul xidma ñuy jàmbaar yoo xam ne eh, ay taalibe lañ waaye ay bokk lañ jaay bokk gandi ko seeni maam wala seeni baay defe woon ci sëriñ bi ba tey jii ñu def noone nga xam ne sëriñ bi moom tool bi dafa yaatu lool bi dafa yaatu fenn fu ne teg na fa mbooloo wutal leen jëwriñ ñu ànd di ko liggéeyal foofu ndax fu lis fu tool fu lislaam yegg rek fa la toolu Sëriñ Tuubaa bi yegg te loolu moom ci la doon xëy di ci gont lu bari ci bayyiti xasida yi di ko dëggal waaye ngir bañ a guddal jërul ñu ci àgg yaakaar naa ne loolu ñu bari xam nañu ko bu ko ñëpp xam li ñëpp ñu bari xam nañu kon daal ñii fi dikk eh, dañ di samay bokk ci wàll yëpp génnu ma leen ci génn wet génnuñu ma ci génn wet kon nag suñ ma nuyusee tey jii fekk ñëpp nu maasi di waajal bisub Serigne Touba bii nga xam ne mooy fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar ah, te ki nga xam ne mooy jëwriñi yoon wi di sunu kilifa di sunu sëriñ di sunu lépp. mooy ki ko war a jiite bu weer yu feeñe wooteel na moom ci boppam wax ci làmmiñam ñëpp dégg ku ne dégg na li mu ci xanaa kon nu la ca war a topp rek nun nu dégg ko te jëfe ko ñoom ñii nag yàlla dafa def am lu leen sëriñ bi sase te lim leen sase nag bi sas bu diis waaye nag sëriñ Touba bu la joxee ndigalit dalay wutalu tey mën naa am yan bi lu mu diis diis dalay tiim waaye du wàcc ci sa bopp yàlla na seen yan bi mel noonu ci yéen ah, yéen nag li ma leen di ñaaxee rek ngeen xam ni lii ngeen fekk baax mooy seen ndono te gëm naa ne li seen maam yi waxoon fii sëriñ bi ci dëkk bii la am na ñooñ da leen doon bindloo ñi mu leen di jàngaloo ba bis bu dikk ne ko danoo bëggoon a fekki sunu moroom yi ndax ñun dikkuñ fi di xëñ du bokk te buñ nekkee ci kër gi liggéey bi ñuy def ci ker day mel ne ñun danoo wuteeg ñee nekk ci tool yi di gor ak a ak a bay sëriñ bi ne leen lool man ngeen ko def waaye nag du leen jëriñ dara li leen di jëriñ mooy liñ leen def loo liñ leen digal ngeen def ko liñ leen tere ngeen bàyyi ko kon yëf yi ci ndigal la nekk jëfe ndigal waaye nekkul ci di dàkk say bëgg-bëgg xam naa ni yéen ñii nag tey pas-pas boobee mi ngi ci yéen loolu moom xam naa ci yéen bu ci euh, bu yàgg euh, tey ji gisuma lu ci soppiku moo tax bu ngeen ma joxee micro du ma ci am lu muy wax lu euh, wax ci tuuti rek ndax wax dégg gudd waaye dal yéen xam naa ne liggéey bi ñu leen di développé ku leen yebal yebaloon ca tool yéen ngeen dem ci xel koom ji ko fa masaan dem daje fa ak yéen xel koom sax man nga ni mm, woote doomi Serigne Touba la du toggee ab loolu mel na ne murit lu mu yaafus yaafus war caa mën a feeñal yéene ndax waru ko xàmmee lu Serigne Touba digle mm. waaye ku mel ne man mii nga xam ne sax Euh, amuñu solo wax at mu jot ñaare ma woote fële ci tool yi ñoom ñii buñ fa dikkee ak ñi mel ne ñoom ci dëkk bi danañ fa bàyyi kër ga bàyyi fa daara ja dal ca diggu tool loolu mooy xamle nañ ne liggéeyub Sëriñ Tuubaa du mas a yàqu kon nag yéen dafa leen di ñaax ndax ñii seen mag laa ñii samay doom lañ nag di leen laabiire di leen xamal ne lii leen sëriñ bi def bu leen ko xam ne ak ngeen nekkaloon ko ci tool di bay wala ngeen di ngox ñooyam fekkee ne eh, am ngeen tawfeex yi di ko def di ñibbi ci seeni kër day seen tawfeex ju leen suñu borom defal waaye lu nit di jëlee ci àll ba mën ko ci seen loolu moom lu ndax ci Sëriñ Tuubaa ndax euh, murit moom jërta wax leen lu génn sëriñ bi nee sëriñ bi nag yàlla daa def moom yàlla nee ak yonent bi nee na moo tax soxlawutoon buy wax di wéet ndax yàlla li mu wax mi ngi ci alxuraan bi yonent bi li wax mi ngi ci euh, ahadis yi kon kooku moom moo tax danaan toog rek ba ñëpp di li ci euh, kon nag yéen am ngeen sos bu rëy ndax nag noonu la seen maam yi eh, mu nekke woon ak sëriñ bi seen bàyyi nekke ko nekkee ko ak suñ bàyyi hmm. fekkee nañ ci lu bari dégg ci lu bari hmm. kon nag tey ci seeni loxo la nekk fii la leen sëriñ bi féetale hmm. eh, ngeen xam ne eh, sëñ Saaliwu am bi may jox ndigal ci ne sëñ Mamoun Bousso mi nay jiite di ko ci joxaat digal ci ji muy muy ji jiite àjjuma loolu mooy tabaski koor yi koor koor gi mu fi mujj woore ci xëytal weer ne ma demal ba ci pénc mi nga woote ci la doon jox ndigal neen na sëñ Muxtaar bu sa neyoor barab bi ak daari kaamil bi ñu bari sax dañu yaakaar ne bibliothèque bi waaye daari kaamil bi mooy kaamilu alxuraan bi ñuy jàng ak barab bi Moodu Maamu nit nay jiite àjjuma boobu yaakaar naa boole woon na ci korite ak tabaski ñaari iid yi loola euh, nag daf naa wax ne ma euh, am nay jamono di sëriñ bi ku mas di waxal ci njëriñ mais sama dëkk boobee di bu nopp sax jumaa ja ma fay def su noppee ba mbàkki bu sa di ko di jiite loolee moo andi moo mur moom bu sam ci <laughs> kon nag euh, loolu lu yàgg la yéen ñi noo ngi leen xamoon ñi ñii seen maam muy waa kër sëti sëñ Modou yónni yaa ngi ni ba ba ci atam mu mujj mi ngi xëy ci jàngu di dari ñii seen seen baay yaa ngi nekkoon ci jumaa ji ñii di di di jiite julli juróom yi ba tey jii seeni doom a ca nekk kon yéen bu ngeen nekkee ci di taxawu sàppe yi di wan nit ñi ko xamul ndax nag mbooloo koo leen fekk ku xama nga ci biir waaye ku desee ak xamit ma nga ci biir te xamut des koy xamal loolu uh, am na ci solo gis naa ne itam ndax lu ci bari danaa bu ma jullisee maa ngi xool ni ñuy leen te yéen dama dul ak jàmbur ci yéen su ma gisoon ngeen boole ci lu ci bokkut dama leen di woo ne leen nii du nii waaye fa lilaay alhamdu li may gis dana ànd ak bu yar dana ànd ak ci teggin te noonu mooy doxaliinu sëriñ bi dañuy nettali ku mas di jàng xasida te xam naa baat bi desee neex waaye sëriñ bi daa wax ne ndax am na ku ko mën a noppiloo te kon ngeen xam ne nag loolu ci la sëriñ bi moom mm, makaarimul axlaaq la ko yàlla bindee wax na ne suñu borom dama bind ci makaarimul axlaaq ba su ma bëggoon a du ma loolu ci làmmiñu Sëriñ Abdou Khadre laa ko dégg mu di ko nettali kon nag euh, ku koy liggéeyal it nag bay boo nga làmboo loolu ndax mooy tax euh, la nga ciy wut nga mën ko ci am ñi nga xam ne nag tam euh, mbooloo la moo xam ne léeg-léeg ñu daje ci barab bi waaw xëy na mbooloo fu mu bari te ñépp ànd ku xir ànd ku bëgg te léeg-léeg xeer gi dana tax ba ñu fàtte fi ñu nekk yaakaar naa waxtu wi daaw ci koor gi am na ñu ma fay dajeel ñuy siyaare waaye booba coow la bari na bari lool dama mujj taxaw wax ak ñoom lu mel noonu nag mat na di moytu naa rawatina nag buñ dee jigéen ndax nee naa leen keroog jigéen de moom bu dee julli sax julli farata waxuñu ko mu yëkkati kàddoom doo dégg mukk ñu noddloo mbaa ñu liqaandoo dañ koy wax ne yàlla moo xam julli béral la wala jullit yàlla jigéen bu yëkkati kàddu sëriñ bi nag euh, nga jóg ne da ngay siyaare si siyaare bi ngay siyaare jàpp nga ne sa faju aajo ak sa tàggoog lor mi yaa ngi koy fas ci sa siyaare bi bi nga koy def xanaa ki nga xam ne dangay ngay dikk di ko wax say soxla gëm nga ni mi ngi lay dégg mi ngi lay gis te bu leen jàpp ne liñ naan sëñ baa ngi nuy gis bu leen jàpp ne waxi daankat la dafay dëppoo ku badis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa xamle ne annaasu niyaamun iza maatun tabahu nit ñaa ngi nelaw buñ faatoo yeewu xanaa ki nga xam ne mi ngi ci kaw suuf di xetti ku nekkoon ci biir suuf te booba mi ngi ci àdduna te léegi kon mi ngi mel ni booba mi nelaw tey nag mi ngi yeewu lim mënoon tey dem li mënoon démb teel bu gën a mën kon nag boo waajee boo jëm ci sëriñ bi jàppal ne boo ko gisul sëriñ baa ngi lay gis boo déggul li muy waxe moom mi lay dégg te déggam gaa ci am solo ndax mooy sa fajukaay kon baax na nag kuy dikkati nga fexe ànd ak bu yar ànd ki teggin eh, di laabirante tey nangoo déggul laabire li nga xamut buñ la xamalee ni jataay bii nga nekk lii la laaj da sa bopp ni kii di baax na ci man ndax mooy tax li may wut ma mën ko boo xamul ni nga koy wutee bul bañ ko la ko xamal loolu mooy li nga xam ne rek nag ñoo ngi koy laabiré ñi nga xam ne ñoom ci seen biir li ñuy leen di liggéeyloo ñii nag dama leen di waajale nag ñoom luñ ca mën di dégg na leen ko jaral ndaxte bu ngeen nekkul foofu rek seytaane foofu lay potox ku ku ku ku tàng man na leen a wax loo xam ne mer a tax mu wax waaye bandoon ak sagom du leen ko wax waaye rek ngeen ànd ak dal loolu yi nag maa ngi ko ci gis dama leen koy ñaa ñaan ngeen jëme ko waaye li may gis moom danaa gis da ngeen yeete waaye du ngeen wax kenn lu kon xare loolu nag mooy mooy mbirum tuubaa waaye kon nag ñi nga xam ne nag moo ñoo gën a bari te mooy mbooloo maa ngi leen di laabiire nag ci diggante rek ab taalibe ak mbokkum taalibeem jullit ak mbokkum jullitam ku ci jëmati ci barab yu mel noonu barab bii moo xam bu mu mën di doon rek ci barab bi ñuy siyaare ngeen xam ne nag lam la mooy ànd ak dal ànd ak yar ànd ak tëgg ndax bunt bu ndaw boo ne mètre ak genn wàll ci lay toll lu mat ñaar ci nit bëgg caa duggandoo xam ngeen loolu mu tudd xam nag suñ ci àggee rek ñu kenn jiitu ku jàll keneen kooku mu ne fanweeri minute rek lu mat junni nit mën nañu dugg ci bunt boobu te kenn du sonn waxe du bari waaye foofu du fu ñuy xuloo du fu ñuy werante du fu ñuy waxtaanee àdduna ku fa nekk sa xel war naa nekk ci sa nga xam it xorma ci nga xam ne mooy yelloo baram barab bi su ko defee ñëw di ko tànqal ndax mi lay dégg loolu gënut mooy boo ñëwee bëgg a jariñu far fa jëlee loxo loolu moom waxoon naa ko ay nit ñuy dégg moo tax nag ma bañ di ca dajeete kenn ndax nag bu damaa yéene ñëpp li ma yéene sama bopp koo xam ne nag yaa ngi jaar ci yoon woowu li ngay li ngay jëfee mbaa li ngay doxee mën na laa yàqal dara ci li ngay dox bu ma la ko mënee wax dafa ko koy wax waaye nag euh, mënoo sensu li nga nekk ci barab ba kon nag ñoom ñii sëñ bi jox ndigal ñu di fa nekk te xam naa ne bu leen sëñ bi joxoon ndigal ñu demal ko ci tool yi ñu demal ci tool yi lu mu leen def loo woon gëm naa ne loola dañ koy waaw ñoom fii la leen sëñ bi liggéey loo kon ñii ñu fekk nañ leen am dégg ci ñoom bu baax xam ni ci ndigal képp la ñuy te bu soobee yàlla it duñ mas a weesu fi ñu leen yem la kon daal loolu rek moom laa ci mënoon wax Cheikh Mbacke di seen boppam xarit moo doon waxtaan ak yéen di leen sant bu baax di ñaanal ñëpp mboolem ko am pas mu màggal si ak yëpp koo xam ne am nga yéene jëtt am ci ngant yàlla na sa borom mboolem bi dem loolu màggal mu parce que yéene waaje bu baax sant la Serigne Touba suñu borom waaye nag tënk ci ndigal yi kii nga xam ne tey moom la kilifteef yi nekk ci loxo muy Serigne Mountakha Mbacké jërë ngeen jëf